lii diine ni mu ñu jàngalee ñun ñu sëyee noonu ak ñun li ñuy sëyee bokkul mag ñi bu njëkk bu ñu daan sëyi ñoom doom ju baax lañ lañ ciy séentu parce que fa leen lislaam jaarloo dañ fay jaar ca tàmbali ba benn du ñu lekk ba seen biir suur parce que dañu lay tere avant nga sëy nga lekk ba suur këll doog a sëy te ñun jàpp nañ ni sëy moom ginaar yi daa war a tegu fruit ji tegu. waaw salade de fruit ji tegu. waaw Nescafé bi tegu. waaw lépp tegu. waaw di kir daal. waaw léegi nag doo ko fas yéene sëy. déedéet soo sëyee ba pare da ngay xiif kenn du sëy ci xiif c'est interdit. waaw loolu c'est interdit yoo xam nga ne saa yoo sëyee ba pare di nga xiif. Ah, mais père. lekk ci la de soo ko de def cib xiif ko dee def cib xiif laa ilaaha illallah seydina muhammad rasulullah ci mbedd mi miir de dama lay wax rek parce que borom Tuubaa Mbàkke la ko wax mu ko tub xiif de su la neexee loolu yow kan moo la wax loolu ban aaya moo ci ban aaya la nekk aaya ah, oustaz ci ban aaya la nekk ah ah déet wax damay laaj ma sax ci ban aaya la ah ab oustaz la rek nga ne ma loolu foo ko gis. su ngeen ko toppee.